aousu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakatu cheikh al xadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokk jullit yi bokk taalibe yi bokk téléspectateur Touba Vision ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam santam di leen siyaar bu baax te di leen euh, ñaan ñaanal jàmm di leen wax na ñoo ngi fii ci Touba Zingonia ci sunu ñaareelu siyaar bi nga xam ne ñu ngi koy amal tey ci fii ci Touba Zingonia kon démb jóge nañ fi nga xam ne mooy Brescia ci huit juillet bi ñu koy wax Otta Diouno tey ñoo ngi fii nag ci le neuf yemoo ko dimanche ci buntu kër euh, Cheikh Ahmadou Bamba ñu koy wax résidence Cheikhul Khadim ngeen gis ne tey ñi ngi taxaw taalib yëpp di xaar ki nga xamante ne fii mooy Serigne Mamor mu ñëw su ko defee ñu mën koo siyaare di leen wax nañ ne ci kanam tuuti danañ ànd ak ay reportage yu am solo ay micro trottoir kon ñu daal di ànd ak yéen rek su ko defee euh, accueillir li nga xamante ne si mooy événement bi. kon ñu marché ànd ci di dox tuuti ba ci kanam jërë ngeen. ay tout tànk yoo xam ne ñu am jom lañ bi ñun seen bàyyi bi gi fay ko mat ñoom ñu ne comme yéen suñu papa yi yéen a ñu teete jënd kër gi fay ko ba mat ñun tout tànk kër ñoo koy fay dërëmu daara ju fi dem chaque ñoom ñooy dajale dajale dajale seen i ñoom bopp génn loolu ba prix de mat ay deux mille nangam dañuy fay raata bi ba mu des fu mu toll nii ñoom li des xaalis war naa pour man ñetti raata wala ñaari raata xale yi tout tànk bergama nga xam ne ci loolu ñu dox mooy xale yi gis si ñuy kuréel nekk ci waañ wi xam ne kenn fay ju kenn waa seen tubaab la ñor ñoom ñu xam ne nag bërëb bi li suñu ambition nag mooy xëttale ko xëttale ko lañ bëgg incha allah ñu ci dox jéego te incha allah dana xëttale ko incha allah. jërëjëf jërëjëf soxna ñu ngi siyaar bu baax di leen wax ne gannaaw bi ñu jógee ci sunu première jataay boobu ñi ngi amaat sunu ñaareelu jataay ak jëwriñ joo xamante ni si ñëpp ràññee nañ ko ci liggéeyal Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ñu koy wax Serigne Seck Nango di taalibu Cheikh Mouhamadul Murtada al Mujahid al Akbar te chaque année nag dañuy gis ne mi ngi ci ànd ci ngan gi di ci def liggéey bu am solo ci wàllu organisation bi ànd koog ay mbokki taalibeem ak ñoo xamante ne si daal wax dëgg yàlla rafetlu nañ seen liggéey tey nag moom am nañ occasion pour taxaw ak moom kon sëñ Seck gannaaw bi 8 euh, juin bi jàllee démb ñu koy wax oto juñoo nga ànd ak Serigne Mamour ci ngan gi te yaakaar naa xam nga ci lu bari ana lan nga mën a wax ak téléspectateurs yi Touba yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog noonu. waaw jërëjëf sëñ ngeen maa ngi leen di ziar yéen ñëpp di ziar bokk téléspectateur u Touba Vision di dellu di santati yàlla suñu borom di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sëriñ Touba Xaadimu Rasuul di ñaan sëñ Muntafa sëñ Muntaxa Bachir yàlla yàggal ko fi lool mu ànd ak wér barke borom Touba jëmm ji ñuy ànd di Cheikh Mamour Mbacké Mourtada eh, di ñaan yàlla yàggal ko fi ba lii mu nal ci liggéeyu maamam bi mu yeggali ko képp ku mu ko bëgg àndal. alhamdulilah borom Touba. Euh, ñuy am mbégte bu baax nag. ci comme ni nga ko waxee rek yàlla mi ñu dimbali ñu bokkaat ci liggéey bi. muy liggéey boo xamee ni daanaka ba mu commencé ba ba léegi ñu ngi ci biir. ndax ay 90 91 ba fi cheikh bi day ñëw cheikh Moxtada góor yàlla. ba mu fi ñëwee la ñu commencé ànd ci organisation bi ba yàlla dogal ñu ànd ci liggéey bi tey donc loolu loolu lépp ak cant la donc euh, liñ ci mën a jàngat daal moo di war a nit ñi sax dañ koy faral di wax liggéeyu sëñ bi moom amul tànki gannaaw tànki kanam la am euh, li ciy njàngat nag moo di euh, tey dañoo gis ni fii ci biir Italie lu toll ci kër sëriñ Touba ji comme daara jii ñu nekk tey euh, sëñ bi jaar na fi sànq rafetlu liggéey bi fi am muy daara joo xam ni daanaka njàngale ak yar moo fi am ndax loolu moo ko ubbi woon ci jamonoy Cheikh Moxtada kon bu ñu fi ñëwee tey fekkaat fi am njàngale ak akub yar bu ñu yar tout tànk yi juddoo ci réew mi. loolu day dal xel xam ni ñoom ñu ngi ci li ñu war a nekk moo di liggéey boobu ñu ngi koy continuer euh, di ñaan suñu borom jàppale leen ci ba mu doon ab université fii ci réew mi ndax loolu lépp xaj na ci li ci nekk nag mooy jàngat bi moo di ñun ñi nga xamee ne ñoo nekk ci bopp liggéey bi ànd ak sëñ bi di liggéey ñun ñoo war a ubbeeku ci vision maanaam ci am ay prospection perspective yoo xamee ni mooy luy gën a yaatal liggéey bi luy gën a fësal liggéey bi loolu moo di lan moo di lislaam bi nga xamee ni tey moom la nit ñi di am si sikki sàkka maanaam ñi nga xamee ni gëmuñu sax di am sikki sàkka ci ban mooy lislaam bu wër moo di bii ñu yor fexe ba àdduna bi yëpp xam lan mooy contenu bi ak lan mooy contenant bi ça veut yëpp ci ñun la mën a jaare ñu wone jëmm vrai l'islam bi nga xamee ni tey moom la ñu jële woon ci Cheikh Mouhtada góor yàlla mu Sëriñ Tuubaa jërëjëf kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla rek nga ànd ak sëñ bi ba ngan gi jeex ak jàmm rek lépp rek nekk ay xéewal ci barke Seydina Muhammad jërëjëf kon ndongo yëpp jàmm ñu xam ne ñu ngi ci yoon ñu ngi jóg di ñëw ci ñoom eh, di ñaan fépp fu ñu jaar rek yàlla wàcce fa ay xéewal ak eh, jàmm ba lépp jaar ci yoon ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim yeggale ak alhamdulilahi rabbil alamin wax na kon jërëjëf ñu ngi eh, jàkkaarloo koo xam ne yaakaar naa di ko sant kenn mooy ndongal borom daarul mooti nekk Baye Fallam nekk koo xam ne yaakaar naa métier mi ñu nekk tey ji euh, jàngal na ko ñu bari ñu bari it jaar nañ ci moom yàgg nañoo gis mu di jëng kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci bi nga ñëw nanguloo disponibilité bi euh, nga ñëw tey jógee ba Brescia ñëw fekk si deuxième char bi ñu nar def tey ci dëkk bi nga xam ne yaakaar naa ne am na cosaan tey ci euh, ngan gi léegi lan nga ñu ci mën a wax. waaw sant yàlla rek sant yàlla di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu di wax barke maam Thierno Biré Fati di waxit sëriñ mun Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Abbas mi nga xam ne moo fi sunu daaru borom daaru Muxti itam yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak njabootu sëriñ tubaab gépp ak ñun dong tam ñu yàgg fi te ànd ak wér waaw fii de moom day mel ni buñ fi ñëwee dañuy dañuy dañuy sant yàlla dañuy gën a santaat yàlla eh, da gën a amaat mbégte ndax fii moom dañ fee bokk daa bokk ci béréb yi nga xam ne béréb yi sëñ Touba yi la te ñun lu sëñ Touba moom rek ñoo ngi ca biir waaw ndax yaakaar naa ndongal daaru mooti bu fekkee liggéey Serigne Touba mu ne ca biir yaakaar naa ne moom dañ ko cay gën a dolli waaye kenn du ko ca yaraangaal loolu waaw loolu daal foofu xam naa ne moom xanaa tim yéen tam ñu ngi leen nuyu euh, lu mën a xew balaa kenn xool yéen a jëf ba nopp nit door a xool kon ku ñu mën a nuyu it bu noppee yéen lañ ci war a teg di leen jaajëfal di leen encouragé di leen sant itam ndax yéen a ngi liggéey liggéey bu am solo ndax li nga xam ne ñu ngi koy jëf fii ka nekk Touba wala mu nekk Daaru wala mu nekk feneen fu mën a doon toog di jàkkaar jàkkaarloo moom loolu ndimbalu Serigne Touba la te ginnaaw yàlla it seen seen njàmbaar moo tax mu am kon il faut que ñu tàmbalee ci yéen itam jaajëfal gi. jërëjëf sëñ Gongo bala ñuy daaneel léegi yéen fi ngay tëjee Euh, lan nga ñu mën a conseiller ci métier mi ndax yow yaa ngi ci jiitu lan nga ñu ci mën a conseiller. waaw métier mi mooy fiir na bari ay ñagas-ñagas ndax day métier moo xamante ne si ni kenn ku ne da ngay xëcc jëmali ci sa boor te lépp nag fu ñoo bokk fu ñu jëm. kon maanaam na kenn ku nekk xam ni da nga nekk ci biir waar wu yor ab goppu am loo war a bay boo noppee daaneel samp sa gopp am keneen koo xam ne daa war a ñëw sofaat ca loola waaw na nañ ko nañ ci boole yërmande te xam ne ñoo bokk fu ñu jëm bokk lu ñu bëgg te it ñoo bokk lu ñu yéene nanu dawal yërmande euh, buñ ko defee rek euh, suñu lépp mën naa yéwén ndax liggéey bu mu mën a doon bu xol bu sutut sero la jërëjëf jërëjëf